waxoon président Abdou Diouf ba muy bëgg a xar suuf si dugg ci suur soi wax na ko Macky Sall président ku ne la réew mi neex na daf lay nax yéenekaay bi lan moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a xaati ci ne taux de bi ci réew mi amul doole te bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci réew mi gone yu mbëkk mbëkk mi jël gaali loo cay wutali Barça ba ñu bari ci ñoom di far di mujjee Barsàq xewit wi dellu si ci réew mi di Barça wala Barsàq yéenekaay bi nañu dulu rafet ci derub kormarem boole ci ki dafay firndeel ne ngóor wàccaaca ab jeunessam gëmatuñu ko amatuñu ci moom yaakaar Vox Populi nañu gouvernement bi def na ay xayma maanaam bilan ci li xew ci réew mi fan mu di immigration clandestine gi nee nañu fukki fan nañu ci géej gi lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñiy yóbbuwaat te di les convoyeurs jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñett teg loxo juróomi gaali loo yu naroon a takk mbëkk wutali bitim réew journal bi nañu démb rek patrouille Sangomar bu marine nationale seppee nañu ci waaxi Ndakaaru yu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu newoon ci gaal gu bëggoon a dem bitim réew gaal ga moo doon dàqanteeg Sangomar bu marine nationale ca la ñu ñoo ca newoon ñoo Gueule Tapée bi gaal gi mbëkkante ak Sangomar jot nañoo sowee ci migrants yi fanweer ak juróom-ñeent ci waaxi Ndakaaru yi fay tolloog Almadi journal bi nee nañu fa mbëkkante gi amee journal La bi nañu fanweer ak juróom-ñeent kese la ñu ci yëf yi ña des ñëpp kenn xamul fu leen jant bi ñoo ngi wéyal wër gi ba léegi nag journal Libération xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk Barça wala Barsaq am na jeneen jéyee ju amati ci géej gi gaalu loo gu yaboon a jëy yaak njombe li muy jur ne jasar ci réew mi anki dina kay nañu ñaar fukki nit ak lu teg dee nañu ci géej gi gannaaw ba seenu gaal mbëkkante gaalu marine nationale le président national di Macky Sall anki dina kay nee nañu li mu santaane moo di ñu boole doole yi ngir jële fi mbëkk mi journal Les Échos nañu jugu fi musiba mi mi ngi fi ba léegi géej gi dem ba soppali ko doone armeel ngir ndawi réew mi gouvernement bi mel ne ku ca bi moo jaay géej gi moo tax gune yi gaal la sine kay wax jooje ministre de la pêche Aliou na bi ba muy dalal coordonnateur yu conseil local de la pêche artisanal di CLPA yi fa la xam leen ñiy wax loolee xamuñu lu ñuy wax li sababoon ndaje ma journal L'As nañu moo di fexe ba amuk déggoo ci diggante ñi séq napp gi ngir ñi yëngu ci napp gi mën a dund ci napp gi ñi séq pêche artisanale bi ci réew mi yéen a kaay bi nee nañu ànd nañu ak seenu jëwriñ ci doxalinam Abdourahmane Kane dib sociologue mi ngi xëy di jàngat ci source wa li tax ba gone réew mi jëlaan bëkk mi Sud Quotidien nañu ak lu ci mën di xew li xew bi ci réew mi mi ngi koy jiñ état bi état bi di ragub deram bi di Dame Diop professionnel di wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne réew mi di Sénégal amul problème mu emploi yi am ci réew mi bari na ci yoo xam ne ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ubbi libération ñaari góor la ñu bett ca porte du millénaire ñuy siim seen mari ngaañ di def yëfi saay-saay police bu rëbës moo doon def ay patrouille ba fekk leen ñuy warante l'observateur nañu ñoom ñaari góor jigéen yooyee ba ñu leen bettee ñuy def yëfi saay-saay kenn ki dafa daw soobu ca géej ga ñu xew jamono yi te wax ci tiis yi war ci kaw presu réew mi journaliste bii di Awa Dabo journal Vox Populi xëy na di ñu ko tàgge ba bind ne aw mu daloon ak te yeeg lewet mu ñëwee woon noonee la demee université dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal 7 indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement